bi mooy xam nga lii lan la ma jox Modou Mouhamed Ndiaye du fi xam nga daa nga dem ci tànn biiru maire yi. Mhm. ni ñuy fettee noonu ñu yëkkatee eh, te jure yow loolu moom moo gën a nekk ci fête maire alaaji ni ñuy waaje noonu. eh sama gaañi ah ah sama beeco Omar Akomo Omar Akomo. <laughs> sama beeco Omar. sama beeco sama beeco Omar Akomo Omar. dégg taas bi. yow tey su yegg dafa ne sama béykat on va la ko lii waaye yéen da ngeen def dama koy sol par force. d' accord Mohamed revue